ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax euh, suñu ñëw fii wax ak yéen nag du lenn lu indi gindeeku euh, parce que euh, seen yenn collègues journalistes ñu ngi bind message di wax ni dañoo dégg ni ñun waa yi ñoo bloqué les travaux au niveau de l'Assemblée ma bëgg a wax ni loolu amut yoon dafa wax ni une heure avant démarrage yu session bi président de groupe yi dañuy déposé les listes bu ñu noppee ci loolu li ñuy déposé mooy la composition des membres du bureau bi nga xam ne dañ ko war a jàllale par élection de liste lii mooy li yoon santaane bi ñu ñëwee ci suba déposé nañu sunu declaration de constitution de groupe intégralité wu député yi bokkoon ci Yewwi Askan Wi déposé na parce que ñun dañoo lancé benn communication wax député bu bëgg a bokk ci biir groupe bi na nga inscrire tous se sont inscrits mais nañu nangul mbir groupe bi dafay liggéey ak conférence des leaders te groupe bi am na souveraineté am na maqaamay tànn kan lay jox poste wala kan la ko dul jox kooku c'est la liberté du groupe mën na ko def par consensus mën na ko def par démocratie majoritaire déposé nañ nag sunu liste bi ñu proposé pour le bureau en partant di quota quotient bi nga xam ne bii moom la yoon wax ni képp koo xam ne kii da nga am ay député ci anam bii bu ñu defee répartition quotient bi lii nga mën a am ci bureau assemblée nationale li fi am nag bañ ko déposé ba léegi ñu ngi toog di xaar te à partir du moment où déposé nañu li des mooy def consolidation bind loolu lépp indi ko ci bureau assemblée nationale ci plénière bi wax ne liste bi lii la ku contesté nga contesté président assemblée nationale def suspension de séance pendant une heure de temps ñuy waxtaan waxtaan bu ñu déggewee xayrun bu ñu déggewul xayrun bu fekkee am na yeneen lu fee def ñu def ko foofu mais lii la yoon santaane mais ñu déposé suñu liste ba pare ñu jël ko informer ci ay nit parce que nit ñaa ngi wax ni diw diggu na diw diggu na alors que le secret du dépôt on l'a pas assuré ici et ce pas la première fois ce n'est pas la première fois donc ils ne nous ont pas assuré le secret du dépôt ba nit ñi jot nañ ci ba ñu ngi ci def ay négociations ci ay groupe yu war a fat ay nit dugal leen ci fii affilié apparenté wu fii wala apparenté wu fee ba ñu ngi xëccoo ay député ndax ñii nee nañ nañ bu ñu dugg ci groupe sangam dañ leen di may ay poste ñu neen ñun ngeen may ngeen ngeen ñu doole lii lañ wax ni euh, ñun on n'a pas de problème ñun Yewwi on a travaillé sur toutes les options et toutes les options nous conviennent li ñu yoon may dañ ciy taxaw li ñu bëgg def nag ñëw ci biir bureau assemblée ci plénière bi yëkkati ay débat wax ni dañuy modifié waat la constitution bi nga xam te ne bii moo wutee ak dépôt bi 53 yi defoon ñun dañuy defar recalcul à partir du moment où des gens ont dit que dañuy démissionné kooku yoon mayewu ko mais la bu ngeen seetlu tout de suite loolu moo naan xew ci biir assemblée bi dinañ ko xeex nag nous on n'a ñun lu ñu yoon may ci la ñuy yem fi ñu toll nii lu ñu yoon may dañ koy jël on boira danañ ko jël ba ni mu jeexee bu weesoo loolu beneen stratégie bi ñu fi mënti lal wékku wékkuwul ci yoon wékkuwul ci démocratie parlementaire danañ ko xeex ni ñu ko war a xeexee. li ci des ma ni bu ñu fekkoon ni ñun dañuy des ci yi nekk dix députés incha allahu bi on calculera avec dignité ma fàttali ne. biñ ñuy toroxal fii ci mairie bu Dakar déggu leen benn membre bu bu bu bokk ci Yewwi bu jóg wax on est resté est cette dignité là on compte la conserver li ñu yoon may dañ koy jël danañ ko doxal li ñu war a xeex danañ ko xeex ci anam bi ñu ko war a xeexe foofu lañ ci yem. lu yàgg ñi bokkee ci taxawu yoon ci ci liste bi ngeen déposé. boole wuñ leen ci liste bi ma tontu leen mu leer mais loolu c' est la démocratie du groupe c' est le groupe qui décide de manière autonome boole wuñ leen ci pour mu leer léegi nag euh, li ci yoon maye yoon maye na ko règlement intérieur prévoir na ko nañ ci yem ci loolu leneen lu ñu ci def ñun fañ ko war a xeexe danañ ko xeexe. li ci des nag moom sénégalais ñooy atte bu fekkee ni am na ñu ne dañuy nekk candidat waxtaan fii jàppale ma fii sotal ma kii daaneel ma kii kooku sénégalais lii di xew ci assemblée tout suite ak ci kanam tuuti dana ko leeral na sénégalais toog xaar salaamaaleykum wa rahmatullah dégg nga si Ouais, euh, nous sommes juste venus pour partager avec vous des informations parce que beaucoup de vos collègues nous ont interpellés sous le prétexte qu'ils avaient entendu que nous, députés de Yewi, nous avions fait le blocage au niveau de l'Assemblée. Nous venons ici tout de suite, je vous ai montré les communications que j'ai adressées tout de suite, c'est inexact. À 9h, nous avions déposé une déclaration de groupe. Quasiment à 13h, nous avons déposé notre projet de bureau, euh, les membres que nous avons proposés au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Ce qui fait le blocage, tout de suite j'ai appelé le président parce que la cloche a sonné à quatre reprises, vous avez entendu. nous n'avons pas refusé dans la salle, nous sommes venus pour voir, il n'y avait personne dans la salle. Et j'ai appelé tout de suite le prétexte qu'il y a des réglages à faire, des réglages Yewwi dépose ses membres du bureau Benno dépose ses membres du bureau ils consolident ils amènent la liste si tous les députés sont d'accord on vote s'il y a désaccord on fait une suspension de séance on discute s'il y a accord ça va s'il n'y a pas accord on travaille sur ce que la loi nous permet de faire donc il n'y a pas de discussion à avoir après sur ça Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de, de, de, de, choses à faire. C'est la procédure régulière devait être suivie. a Non, on n'a pas discuté de prétexte. Je vous dis simplement que nous, a déposé à temps. Le prétexte qui est avancé, c'est nous, qui faisons le blocage. Constatez-le vous-même, nous ne faisons aucun blocage, nous avons, déposé, Et nous n'avons plus rien à déposer au niveau du secrétariat général. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'administration qu'il continue de faire les négociations, ce n'est pas la première fois, mais je dis simplement ce à quoi nous nous attendons, c'est le respect strict de la loi. Nous avons déposé une liste de 53. Les collègues députés sont libres de rester dans le groupe ou de partir parce que, parce que, parce que, s'il vous plaît, parce que euh, la loi le permet. Mais le calcul étant déjà fait, les dépôt étant déjà fait, on ne peut pas revenir en arrière. S'ils décident de revenir en arrière, il faudra qu'ils nous disent sur quelle base légale ils le feront. En tout cas, nous, ce que la loi nous donne comme droit, nous allons euh, rester debout pour le prendre. Euh, S'il y a autre chose, par les voies qui nous seront permises, nous allons nous y opposer. Et je voudrais simplement faire une euh, euh, précision. Si l'ensemble des députés démissionnent du groupe pour qu'il n'en reste que 17, nous travaillerons suivant ce que la loi nous offre et nous resterons dignes de cela. Donc, non, je, je, je, je ne ferai, non, je ne ferai, non, je ne fais pas de commentaires sur des députés qui appartiennent parce qu'ici, nous sommes venus sur une même liste. La liste, on n'a pas investi un député parce qu'il était bleu, noir ou marron. on a investi des députés parce qu'ils sont de Yewwi Askan Wi on ne connaît pas d'organisation politique on ne connaît pas de récépissé d'organisation particulière de système religieux ou de système je ne sais quoi ici ce sont des députés d'un groupe parlementaire qui a un nom qui l'a déposé qui a battu campagne sous ce cette bannière là et vous tous vous l'avez connu donc donc oui non parce que nous avons déposé Et nous, nous, euh, nous, sommes interpellés sur des négociations qui s'entretiennent sur le fait d'accepter et de compétition sur l'acceptation d'un apparentement des députés dans un groupe ou dans l'autre. Ou Alors que <laughs> aujourd'hui, au niveau de la plénière, on n'en a pas encore parlé. Donc, qu'est-ce qui se passe Nos informations qui devaient être secrètes sont déjà passées sur la place publique. Ben, écoutez, les auteurs n'ont qu'à s'identifier et demander pardon. Merci